bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa salama taslima ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax ci weeru koor bi ñu génn di leen ci ndokkeel di ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala lépp luñ ko ci doon jaamu yàlla nañ ko nangul lépp loo xam ne itam xëy na doomu aadama taxoon nu def koy yàlla bu mu nu ko toppe may nuyu ñi toog ci jataay bi yëpp muy eh, Serigne Diop ak Mouhamadou Lamine Sarr ak Mame Sine ak Mouhamadou Diop ak yow sëñ Demba Diop. di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru koor gi ñu jóge di leen ñaanal nu fekkewaat ko yu bëree bari te itam buñ fi jógee tey tey rek yàlla na yàlla dolli suñu xéewal ban fi tasewaat tam bañ a dog te itam nuyin nu xam ne rek ay jo doomi ay jul ay eh, doomi adama lañ ay jaami yalla lañ yàlla moonu sàkk moonuy may moonuy xañ yalla bu mu nu xañ nak yalla nu may te te itam nu bancee gi sun bop xamni ay julit lañ la ca topat muy wéru koor gi def nañ ci suñ kemtalaay kàttan lépp loo xam ne itam defo nañ ko ci itam yalla bu mu nax say daal len fi jankontel yépp ci ciona li ko ci biir koor gi dañ ci jànkonte lu bari bari ci ay coono ci di tànnaat président bu bees biñ koy tànnaat ci lépp ci koor gi la ak coono yiñ ci fekk ak yëpp waaye gis nga yàlla ci boppam lu mu bëgg rek loola mooy am lépp mujj na sotti ci jàmm ak salaam euh, ba ca des mooy ko ci xool leen pexe yëpp ñi fi ne woon def nañ ko waaye euh, ana sax li ngay gën a wax noonu justice bi def na lu ne ba à la fin mu def li mu def nit ñi bëgg ci gërëm maam nag fàtte yu baree baree bari yooyu xëy na fàtte ak jëlale war na ci doomu aadama waaye nag fàtte lu réy noonu yiñ fi def ci ay tooxi doon ak yooyu yëpp itam daal di koy bëgg a fàtte noonu moom kiiwul bi ñu des mooy li fi xew ci ay événement ci at yi yëpp rey ay nit yooyu wax naa ko ci biir kii te wallahi képp koo xam ngay police ngay gendarme rey nga doomu aadama te tey ko yaa même buñ la attiwu sax yàlla dina toroxal ci àddina yàlla ci boppam moo moo fonk doomu aadama ñoom ñi fi nekkoon di wax loo ma sa wax ak nguur gi fi ne pourtant man surtout ministère boobu yoroon tour yéefar bi xaw ma nu mu tuddati Antoine la xaw ma man bu ma daan dem ci kilifa yi diine yi ak ni ma xamee bu dee ci Touba gi ma gën a xam ni fi nit ñi teg ñii fi leen fi remplacé tey ak ñoom ni leen daan jéem a diaboliser ma ne damaa xam ne xaa ñi amuñu amuñu ay renseignement de yow léegi tey noonu naka la ni def ñoom ñoo woon ñooñu ay terroriste lañ ay force noël force culte xawma ak lan ay mon ak molto nuñ koy waxee mm-hmm. li ñuy sànni ci biteel yi moo ko waaw yooyu yooyu yëpp rek tey waaw waaw cocktail molotov mm-hmm. am na benn yaakaar naa ñu njëkk a libéré am na benn rapport bu génne benn way ni yee man de big ni lewu ma ndax dañoo libéré terroriste yi <laughs> yooyu yëpp tey ñoom ñoo yore réew mi yàlla yàlla defal jàmm ak ñoom te li ma la wax ni laa wa makra wa makra laa wala xayru maakirina ñoom pexe mu ne def nañ ko waaye la yàlla bëggoon rek mooy am li may wax ni nit na am yéene ji rafet maa ngi déglu benn député mu ni dañoo ànd dem Daaru Musti Sonko dugg ak comme ñan ak ñan ci responsable yi Bassirou Diomaye Faye ak ñooñu ak basak lañ leen lalal ci biti ñu toog <laughs> ñu to mu romb leen muy ndeke ma ba basanke ba romb gars yi toog ci la président bi toog <laughs> xoolal maam ni ni ni yéene bu rafet bi mooy dégg naa mini bi bi seen kii bi ñu doon def uh, Kër Massar xaw ma dafa ni ko yow mii yowee suñu candidat tànn ko yàlla ni ko yow la <laughs> xam nga loolu lépp uh, xerenteeg yàlla la te yàlla lu mu bëgg mu am loola mooy am inna allah ala kulli shay'in xam nga xul laa maalikal mulki tuutil mulka man tasaaw damay dégg ñu ni yàlla mooy joxe nguur dëgg la yàlla mooy joxe nguur boo ko xoolee ci côté boobu xel eh, dogalu yàlla dugg na fa. waaye est-ce que carte yëpp bu favorable woon jëm ci Amadou Ba yàlla moo ko fan yàlla fa nit ñi joxoon jëm fa li mu sabab loolu foofu la fekk yàlla nee na du ma sabab loolu kenn waaye exécuté laa fi ne non sabab loolu kenn mu mun ànd ci ak moom kon dëgg la yàlla mooy fal nag moo nu fi ba waaye loolu itam na bàyyi ci xel kenn du xëy rek te ni comme ni ko sëñ Tuubaa di waxee nangu woo jaamu yàlla nangu woo liggéey te ni da nga dem àjjana xëy na baaxam mën nañu koo defal de waaye moom da koo dàq bon léegi nag eh, gars yi li ma la nii buñ ko seetee ci Moussa ak eh, Firxaw na at mooma lañ ni ko ki lay remplacé ren lay judd ji góor gu judd mu rey te ba ci Moussa boobu ba mu ko ba mu ko bëggee rey ba ko yaayam eh, am na fu ko yàlla di waxee ci alxuraan ni ko bi mu ko juyee mu ni ko def ko ci pañe bi rek sànni ko ci dex gi di bu soobee yàlla dina dellu si say loxo waxuma la dellu si mais dafa dellu si bokk boole ko ñu di ko fay muy nàmpal doomam waaw lool la ko yàlla wax ni ko dellool eh, sànni ko ci def ko ci pañe bi teg ko ci ndox mi ba mu ko gisee ba ko rey doom jabar ja ni ko déet comme amuñu doom nan ko yar mhm. ndeke musaa moom moo ko moo ko loolu même même Macky Sall waxoon na ko Ablaye Wade sax nee na ko woon euh, ca diggante Moussa ak na boobu indi doon na ko ba ba mu ko opposé wu te moo ko mujj remplacé ñaareel ba euh, ci diggante Youssouf ak euh, buur ba gis nga ko dañ koy tëj ca bu mu génn remplacé ba buur ba jaaxle ñu ne ko ki ki ki ma féndi si gént gi mu ci kaso bi ba mu génnee firil ko mu fab ko teg ko jox ko lépp ci loxoom mu yore section nguur gaag yëpp ba mu fa jógee moo ko remplacé ana ana kii tey ñii tey eh, xam nga bu ma bëgg woon naa séq wax bi mu koy gunge na ko bëgg nga abal ma na loolu ko daa bëgg nga <laughs> boo mënee abal avion bi ma tukki ci <laughs> te gaa yaa ngi noonu nag ñoom lu ma dal ñoom ma ko teg loolu it ma ne xam nga xam nga sa waxu saytaane baaxul maanaam fi ne ci ni mu doon boo xamee nasuwaa rek mën nga ni da koo du da ko mën na ko ni ko ah, ah sëñ bi de boo mënee abal avion bi xam naa nanga <laughs> nanga xam nga yooyu même sax boo gënee seet bee kaso la Yuusufu jóge dem remplacer buur ba kii kaso bi lay jóge ci lu matul ñaar fukki fan xoola boo boo xoolee ban xaw ma ban ci mars la génn le mars mu nekk président maanaam euh, élec euh, campagne électorale bi fukki fan la woon ak ñeent xaw ma juróom yu jëkkee raw na ko moom mu génn ci la battre campagne ñu seddoo réew mi nit ñi faral ko bon kon da ngay ma xalaat ni bii moom bi bi mu jógee kaso remplacé ko euh, moom moo gën a doy waar ndax kële ba ko buur ba tëjee moom ci ci nubbo gi yàlla def ci moom tax nañu bi mu géntee génteem ko ko tiital googu mu ñu woo ko xëy na nag kii gént bi waaye yàlla de am na euh, xekk ma boobu ñoom ñaar lañ boole kaso xaw ma ñu ngi doon gisee xaw ma duñu gisee waaye ñu tànn kii àtte nañ kii àttewuñ kii anam ana tey euh, difa xam nga dafa am lu bari bari lu xew ci diggante euh, ñetti at yi rey nañ fi ay nit xam nga foofu man ni ma ko mën a gisee ci àtte yàlla moom képp ku rey doomu aadama te tey ko moom buñ la àttee di nga torox buñ la àttewul di nga torox moom wa man yaqtul mu'minan mutahammidan fa jazaa'uhu jahannama loolu moom yàllaa ko wax ci alxuraan mu leer nañ képp ku rey benn nit mel na ku rey nit ñëpp ku dundal benn nit mel na nga ku dundal ñëpp ñoom na ñaata nit lañ rey ñaata nit lañ fi tëj ci kaso ah ñoo ñëpp génn nañ tey nekk ci nguur gi ña ñaata ñu ñu ci ministère yi ñu nommé nommé bërki démb rek ñu ci bari ci kaso bi lañ new waaw xam nga itam yàlla dafa yóotil xikmata may saa wu ma yóotil xikmata fa xat uti xayran xam naa li ma waxoon ci xutba gi laa dinaa laa ciy dolliwaat ñoom lañ fal ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawféex euh, te dimbali leen te nit ñi am nañ ci ñoom yaakaar ba ci des man lenn rek laa leen di ñaan ñu wormaal suñ kilifa yi diine yi rek kese kese nañu wormaal suñ kilifa yi diine yi dong dong wormaal bu fa deful dara sax nañ leen jox seen cër te gëm naa ne yaakaar naa ne dinañ ko def itam nit ñaa ngi leen di jéem a diaboliser di def lu ne di ko wax itam waaye gëm naa ne comme ni contexte bi dikkee seen nguur gi moo tax demaguñ fa Abdoulaye Wade na moom kenn du moom moom bis bañ ko nee gagné nga rek la dem Touba euh, bañ ko nee gagné nga rek amul 30 000 ñuy combat euh, ki ki cortège baa ngi jëm Touba 30 000 ba ko Abdou Diouf félicité rek ni ko gagné nga may toog ngay toog déglu rajo bi amul 30 000 mu jëm Touba biñ ko gagné it fii la toog demaat këri këri diine yëpp wëraat leen tàggu leen tam def na ko kii ne moom bañ ko gàñee dogewu fi dégg naa bu fekkee na dégg naa sëriñ mii di wax naan Guinée Bissau wala fanaan loolu ruslu na lool bu fekkee ne ne bu fekkee nee ñu dafa daan man li ma dégg dafa umra ji bu umra jee moom baax na waaye bu fekkee yow yorum réew fukki at ak ñaar ñu gàñee la mënuma faa doge bay fan gi fanaan Guinée Bissau gii loolu loolu moom bu ko defee moom dëgg dëgg dëgg lu lu ruslu la moom fo loolu ko ci moom bu fekkee loolu la def bu demoon umra ji daal ñu ni at gaa ngi waaje kii umra baa ngi koor koori gaa ngi waaje ñëw waaye jóge Sénégal gi fanaan Guinée Bissau gi ah te te yor fukki at ak ñaar d'après image yi am dafa demoon man loolu laa dégg de wax dëgg yàlla ginnaaw bi di dégg moo tax ma la ci moom mii laa ko dégg ah da ngaa déglu sama xut bay kon ah xam nga moom la ko jeexale <laughs> laa mujjee ci xutba bi ah may ñëw ci loolu. may ñaan gouvernement bii fi ne. ay tappale ki caaxaan lañ ko fi jëlee. xëy na nag du yëpp lañ fi mën a jële moom. mais sëñ bi nit koo liggéeyloo mu yàq lañ koy liggéeyloo koo dénk sa alal mu yàq ko ko yóbbante du ci jot. Eh, li may wax nii koo amal sa jar sa doom wala sa jarbaat nga yërëm ko jëndal ko oto wala nga sarteel ko biti da koy yàq. yow ngay liggéeyloo nit ki doo ko fay nit ki leb sa alal du la du la du la fay nit ki liggéey yu yu bon yooyu fi ne yooyu moom moo gën sax garaaw ci ci ci yàqu détourné alal moom yooyu moom war nañ koo seetaat bu baax a baax a baax a baax loolu boobu moom boole wanaak gone yi itam dañ leen di nax rek kuñ ci ni eh, comme ni ko sëñ Touba wax ci ñaari woyam yooyu wasaytukum yaa jumlata tulaa bi bi talabil xilmi mahal aada bi ittaxidoo fil xilmi wa taxadu wa yasehu jaalibaatu raq bi wallahi ku jangul amo yar amo teggin amo métier nanguwoo liggéey bu ñu la lay yaay remplacé relève ray bop yi ci nga bok boko ci yow man man ma remplacer maire bi luma xam marché est-ce que man ma nek nekk sax délégué marché bi xam nga loolu une fois ñu génne ko seen bopp yi relève rew bi yéenay recherche réew mi la ña jang am xam-xam nangoo liggéey jub xeyna ñoño man nga ni nangoo kër këri seen bopp waaye wir topp maam siin jox la nga attaayal ko jóge ca dem ci kee mu attaayal jëm ca kee mu bu amee tubay may la dem ca kee bu amee simis may la mais bu amee xel sax nga war a xalaat sa bopp yooyu kat xam nga léeg-léeg naan ndey ju liggéey foofu itam ma dolli ci tuuti waajur yi ñoo war a taxawaat wax la moo annama amwaalukum awlaadukum fitnatun jàngal seen doom yi xëy na man de mënumaa yar sama doom ndax yaruwuma ku yaruwul mënoo yar kenn waaye nag nga xamal ko ni ko lii ma dal bu mu la dal man xam nga léeg-léeg ni ñu naan euh, boo dee tux wala nangam doo ko mën a teere sa doom man kay ah kay li nga doon def lu bon da ngay taxaw carrément sa doom ni ko lii laa doon def jiguma doo ko fi defee carrément dama doon tux dama doon naan dama doon def lii baaxul doo ko fi defee jar na ma la rey mais tam dégg-dégg pakk bi la fël da ngay fexe bu mu sa doom te itam ki nga war a wàcc fii doom ëllëg boo fi jógee moo la war a ñaanal moo la war a toppatoo sa ginnaaw tam boo na am na ñoo xam ne xamuñu ban bi seen bàyyi nelaw mas naa ko wax dem di laa suñu ilimaan dëkk ba kañ la sa bàyyi bàyyi ma nekkoon ilimaan ma xam naa bu buñ gisee kii moo yore certificat de décès xam nga koo xamul kañ la bàyyam nelaw <laughs> waaw ah? <laughs> yooyu yëpp boo gisee mag ñi daan gis nga dañoo toll foo xam ne fii eh, dañoo war a delluwaat jàppaat jàppoo waat jàppoowaat jàppalewaat njaboot gi xam nga Bassirou Faye mi wax naa leen ko nee seen morom la mais bu amuloon di diplôme te dina nekk lii mu ne kii benn ku nu mu tuddee Idrissa mas na koy wax eh, benn waaye nee na xaw ma nan faal mi benn député mu li muy daj ci man kenn daju ko ci man waaye bu ma da gañoon tey du ma ko def ministre de finance ndax xamul dara <laughs> waaw kon loo loo sonn sonn te amoo xam nga da nga nangoo liggéey am yar ami teggin am jom surtout jom nag am sutura loolu moom manqué na lool lool lool lool yàlla na ci yàlla dimbali sëñ Diop <laughs> ba jaay Seydina Mohamed yàlla na yàlla may dono yu baax rek ñun comme ñun baaxul yàlla na suñuy doom xam nga li ñu war di ñaan suñuy doom ëpp nu xam-xam gën ñu waaye buñ diggee fekk ñu ñiiroo ko ŋaayoo ah, dara du baax de te loolu bokk na ci xutba gi sax dañ fee nekkoon di def euh, ay ndogu suñ kemtal ay kattan ba def ko fi ñeent ba juróom ak laylatul xadar lan ca gën a bëgg nag sant nañ ñu ci wax dëgg yàlla am nañu ci taxaw taxawaay bu rëy rëy rëy surtout jigéen ñi ñoom Maara Sarr ak ñoom yónnee nañ fukki junni wax dëgg yàlla loolu rëy na ci man lool bii ci des muy ndogu yi ñu doon defu ci kii bi mm, ci bis bi ñu doon jàng téere bi alxuraan bi ci jàkka ji wax dëgg yàlla boo duggee ci kii bi eh, ba gis nit ñi liñ fi indee seen alal niñ ko doon doxale eh, neex na ma lool ma di leen ci sant di ci gërëm di ñaan itam ni ma koy waxee rek yàlla na yàlla may ci jàkk ji ay borom doole yu baree bëri ba liñ bëgg ñu man ko fee def ndax ba ndax itam noonu génn leen gën a jege ci toog nii ñaan may yàlla bala nuy bàyyi nun ñi ñuy remplacer yi jàkka ji yàlla mooy fekk borom xaalis ay boromi alal boromi taalibe yu mën a def liñ bëgg bu ko defee ñooñu duñ sonn nun xëy na sonn sax yàlla nañ ko yàlla defal yow itam li ngay liggéey yàlla la si yàlla defal lu kawe sa njort euh, bul yaakaar ni ñi am ay télé ki rajo yi ñoo la gën joom joom bul kenn mm-hmm. dañ ko ko sabablu rek li ma waxoon léegi laay delluwaat da ngay sabablul yàlla jàppale boo ci defee sa fulla ak sa kii mën ngaa dem ba am sa journal am sa rajo am sa télévision yëpp ah yàlla na la ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed tam jigle itam jëf yàlla na ne kullu aamin wa antum bi xayri allah wa aleykum salaam wa rahmatullah